wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tasliman ma way fi mbër mu mag way fi yaaram moo xam ne seyxu baara moo di maamam ma way fi mbër mu mag way fi yaaram moo xam ne seyxu baara moo di maamam ma way fi mbër mu mag way fi yaaram moo xam ne seyxu baara moo di maamam kookaa di seyxuna muhammadul basir baay baa di abdulaat wa innahul kabir kookaa di seyxuna muhammadul basir baay baa di abdulaat wa innahul kabir moo sell moo yaatu te moo am xam-xam moo raw ci maasam yépp te moo di kàngam moo sell moo yaatu te moo am xam-xam moo raw ci maasam yépp te moo di kàngam moo aw ca yoonu seyxunal xadiimi te dëddu yoonu noon ba kay rajiimi moo aw yoonu seyxunal xadiimi te dëddu yoonu noon ba kay rajiimi ku rëy ci yow mi mbàkke am idaaya te ku la def wasiila am diraaya donnu nga cër bu rëy ca ahmadul amin ku weddi laajal waa kajoor ñooy ñalamin donnu nga cër bu rëy ca ahmadul amin ku wetti laajal ak kajoor ñooy ñalamin sa baay ba mooy ka gindi waa tuuba lewet moo gore moo yaatu am ngorte moo lewet sa baay ba mooy ka gindi waa tuuba lewet moo gore moo yaatu am ngorte moo lewet musoo di jëf lu ñu xeebe doomi soxna saw melo yiw na saw doxi ni na musoo di def lu ñuy xeebe doomi soxna saw melo yiw na saw doxiini teey na yàlla na buur yàlla guddal sa fan wi te yokk sa may wi ci réew mi ak ci dun wi yàlla na buur yàlla guddal sa fan wi te yokk sa may yi ci réew mi ak ci dun wi ci barke seexu basiiru xujja may samaam ak turandoo baara mbàkke mi imaam ci barke seexu basiiru xujja may samaam sa turandoo baara mbàkke mi imaam amina amin wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadin wa alihi wa sahbihi wa kullu man qad jaa muminan bihi ma feeñal fi sëriñ baara mbàkke mu baax lamina doomi lamin ndaw boroomi xar baax xawaarix ya mu lamboo sewal na docteur lu waay wopp bu tifee nga wér ba def boor borom baati ni koy gëm la jël na diiwaan dëggoo mbaak taxawaayam ba doy na kéemaan biri xaabiri jilayhi riqaabi jalla kamma jaasa ma daarul ulumi jalla yana baay bala noon cas di jéema aw daam sëriñ baa ko ne toogal ma jël ba dem saam ne seex bamba misaalam du waliyu mbaam ku ni sëf-sëfi doomam di xajji muy raam keroog ba mu feeñee ci daaru duniya la daan xetti la xeetam bi xëyri sunyaa ku feeñee ci daaru duniya la daan xetti kajoor ak bawal ak saalum jolof njaay na ngeen jébbalu jébbal ko seeni nganaay bi awsaafi siraarin laxat taala ani awsaafi kamaalin laxat taala bu diingat njëgam janaaw xamul yoon te sañ-sañ ba ca baayam lu ca seen yoon sëriñ bi ak ñamu nampal asal danuy naaw ndogaan ak pakk buy fel sëful fafal naaw nuroo tax te ye mbir su do am saaw ku déggoon la ma xam ne baara day naaw kajoor ak bawal ak saalum ak jolof njaay na ngeen jébbalu ko seeni ngànnaay bi aw saafi kamaalin laxat taala ani aw saafi siraarin laxat taala bu leen di ngan njëgang janaa xamul te sañ-sañ ba ca baayam lu ca seen yoon sëriñ bi ak ñamu nampal asal danuy naaw ndogaa nag pakku buy fel saful fafal naaw niroo tax te ye mbir su ñeel du ku déggoon la ma wax xam ne baara day naaw subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifoon wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin barkeb